Sénégal émergent mu ne programme Sénégal émergent pour mbawen remde mu ñu mën a bay maaro ñu bay ceeb gawri ñu bay dugub wayno makka en ñu bay ak lu mokk ha gandanta ko remete matam ɗo wawa wunnude matam mu ne ba nga xam ne mbayam matam dana dundal waa matam ministre o wi kam noon mu ne ministère bi nag wax na ko mimi ɗum moƴƴi moɗo yaha mu ne loolu baax na maa ngi dem mais min yidde am yawtiɗo o mune wawi man somo bëgge bëgge ci matam pasano foof ñagoɗe reme pour matam wawna wurnude matam mais so wurni matam ha gasi wurna guure goɗɗe e nder a moom kay yimu wax mooy ñallen buñu demee matam wa matam bari loo xam ne day dundal wa matam ba mën a dundal sénégal jibɓen o ñaagui duwaw mi ngi sakku ñaan nag yàlla def loolu fii ci matam liggéey baaba insha allah mi angisima mona wajjur wi dëgg dëgg nag moom gouverneur engagé na ɓe allah waddi kam ɗo mona yi ko yàlla boole ki ñi mu mu bokk ak